Euh, ci ab euh, mbir mi sax mu ngi amee ci ab compétition boo xam ne dañ ci doon euh, wane mala yeeg yooyu genre foire ca Mbàkke ba xar ba mujjee de gis nañ ni nga génn def ci ab déclaration li ko waral nag dañuy fàttali ne yow yaay président bu ASBA di association pour le bien-être animal mbootaay boo xam ne maanaam dañuy xeex ak ak yëleef bu dee mën naa ko woowee noonu. waaw mën naa ko woowee noonu xam naa di nga ñu ñëwalaat bu baax ci association boobu. Euh, wante it ci maanaam buñ njëkkee ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, mbir moom xew. Euh, lu waral nga defoon ci waaw kii boobu noonu. waaw dèjà Asba man lañ def jëwrin ma kontaan ci lool. Mhm. ñu waxtaanee ko ne réew mi soxla na fi mu nekk nii comme li gars yi di wax fi nekk nii demande sociale la dégg nga même bu fekkee ne en général bu ñuy wax sociale société duñ ci boole mala yi. mais ci lañ bokk. Euh, bëri na loo xam ne boo ci génnee mala yi daanaka société bi. waaw kay voilà te même àq yelleef boobu yaa ngi naan est-ce que war utiliser ñëw na ci xadis ak xaq yéen saa utiliser àq ne ak mala yi mooy bu ngeen soxla pour rëbb leen ngeen rëbb la ngeen ci soxla pour ñam waaye pas pour fo kon àq la utiliser terme àq ak yeneen lu mel ne ragal yàlla xam nga en général euh, bu ñuy wax loolu diggante nit ak nit nga jël alalu jàmbur yàq der ñu ragalal yàlla. xam kon da ngay jàpp ne ragal yàlla ay nit a koy waxante yéen bi sasana wax na euh, waxamaane boobu mu fekkoon Médine te mu doon toroxal euh, gëléem ga gëléem ga ñëw jooy ko ci nopp yeneen sa sallam ci gàddaay gi ñëw ne ko waa ji de euh, mooy sama kilifa du ma jox ma lekk lu doy li may sëf ci liggéey kenn xamul mu toll du ma noppalu wax ko ko bay jooy yenn sasam kese mooy dégg yeneen saxaba yi ñu ngi taxu mënuñu dégg mu ne kan moom moom gëléem bi ñu woowal ko benn waxambaane mu ñëw ci verger bi mu ne ko yaay borom gëléem mu ne yàlla ittaqillah fil bahaim mu ne ko ragalal yàlla ci muuma yi kon mu ragal yàlla génn na rek nit ak nit mu ne du ngeen ragal yàlla ci yii hmm. mu ne ko nee na da koy sëf lu diis du noppalu doo ko jox mu lekk kooku ne ko bis ni ko tey tuub naa ko danaa ko toppatoo kon nit dugg na àjjana ndax lu baax lu mu defal kan pas nit pas malaaka pas jinne kan mala xaj boobu waa jox mu naan hmm. nit dugg na safara ndax lan ndax muus bu mu Euh, takk ci néegam këram te jox ko mu lekk jox ko mu naan kon nag lu tax julli di bëgg jàppe ne loolu yëfu tubaab la di am yërmande ak toppatoo mala yi kon ñun eh, ñàkk nañ xam lu bari ci suñu jàngale diine tey jii kuy toppatoo mel na ah kii di dafa tubaab bi nekk fii ci ay musée xaje et cetera loolu lañ lay wax lu tax duñu wax dafa jullite xam nga am nañu problème de concept ak problème de de culture islamique mm-hmm. alors léegi nag moo tax asba ñun ñu jóg ci ne comme nit ñi soxla nañ ko saa su ne nga dégg toroxal nañ mala fii def nañ ñi donte woon sax am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi def lu rafet ci mala yi euh, mais kon bu ñuy jóg di xeex côté boobu lañuy gën a xeex mooy gën a bien sur encourager ñuy def lu baax mais euh, aussi euh, xupp ak sensibiliser ñi nga xam ne ñu ngi def safaan mhm. su ko defee loolu ñuy wax gavage sol mala loolu du fi guléet bu tabaski jegee wala korité wala aj màkka ay tamxarit wala et cetera dañuy sol xar mi wala nag bi ngir mu am poids gonflé ba doo mën a noyyi euh, loolu euh, daf koy gaañ mën na dem sax ba mu dee ci comme kaawu xar bi du du kaabu isolé de euh, léegi su ko defee da ngay gis ci daral yi ni ma ko waxee tabaski wala korité da ngay gis gars yi dañuy sol bëy yi xar yi lu ne la leen jox ñu lekk lu ne lañ leen di jox ñu naan fan yi rek maa ngi ci doon discuter kenn ku ma xam fii parce que moom tam village la nekk yore na yu mel noonu ma ne ko carton yi lu ne ngeen jox seen xar yee kii muy reetaan ma ne ko du lu ne lañ mën a lekk du lu ne lañ war a naan mm-hmm. euh, bu xiifee moom loo ko jox mu lekk mm-hmm. bu maree loo ko jox mu naan et d'ailleurs sa yaram day daw parce que ki nga xam ni laa dun boobu dee mbakke moom ci boppam wanee na ni euh, rakkam mu ne dafa xiifal xar bi marloo ko après doog koo jox mburu bu wow ak ripaas ba pare comme xar bi mar na mu jël ndox def ci euh, lem xar bi xam nga day mar muy naan naan ba loolu moo ko fatt dañ ko peese ba pare rek mu daanu de kooku loxo doomu aada doomu aadama yi la kon loolu la ñuy wax gavage mooy sol ku sol loolu kon jaaduwul parce que bëgg nga ci benn concours sa laadum ëpp poids xar aussi am na poids bu mu war a mën a yem ak nag ak extra nga xam ne su ko dépassé rek xamal ni nekkatul lu normal kon bëgg xaalis wala gagné concours warul a jaral loolu kon euh, loolu xeetu toroxal la maltraitance mm-hmm. ci wàllu euh, mala moo tax mais ñun nag ci asba xeetu toroxal ci mala xeetu toroxal yëpp ci mala yëpp mooy suñu euh, objectif mais suñu objectif surtout sensibilisation parce que mu nekk ni ñun nekkuñu association bu am doole boo xam ni moo tax ñun dañu am benn stratégie bu am solo ci li ma jàpp mooy que ni lu ñu gën amal solo mooy nit ñi bàyyi xel ak yelleef euh, ak wormaal mala ci ku nekk activité bi nga nekk moo gën xam nga ASBA nekkul benn association boo xam ni day dem ci terrain bi fu nekk ci région yi loolu li mu ci moyen nangam mais par contre ñu bëgg a ci suñu stratégie mhm. mooy bépp association ak bépp secteur d'activité boo xam ni day laalanteeg mbiru la ñu fexe ba jokkoog yow bàyyi loola xel maanaam ne la intégrel problème mu bien traitance animale ci li ngay def loolu mooy gën a doon suñu euh, stratégie mm-hmm. kon ñu ngi ci am nañ suñu récépissé commencé nañ gis nga léegi boo amee occasion bu mel noonu ñu def suñ communiqué et cetera cetera ñu bëri di ko rafetlu Euh, di wax ne vraiment lii soxla nañ ko ñu bëri ci Facebook bi ñu ma naan nan laa ñuy inscrire ci association extra man leen may leen ñu tuuti rek parce que ñu ngi organiser wu ba xool ban format lañ koy def ak ban créneau lañ leen di wax euh, bu jotee rek di ngeen am information. ndax de ci seen action da ngeen ci prévoir peut-être tey bu amee ko def euh, méttal mala wala ko def comme par exemple li xew wala yeneen ngeen topp ko ci yoon wala. waaw waaw waaw xam nga lu tax parce que am na ñoo xam ne boo leen rek ñu dellu si ci yoon dañ ko doon def ñàkk xam. xëy na xamuñu ne xar boo ko joxee mu lekk li mën na cee dee xëy na xamuñu nangam nga sensibiliser leen rek euh, ñu euh, dellu ci ginnaaw d'ailleurs ñun ASBA incha allah liñ bëgg mooy par exemple euh, gën a waxtaan ak association vétérinaire professionnel yi ak les relais vétérinaires et cetera pour ñu gën a dooleel am na déjà ñun tam bokkuñu stratégie suñu association bokkul nga xam dañu dara amu fi yëfu cuune yooyu. yow nga ñëw chaque fois ne kenn defu fi dara dara mosu fi am ñun duñ def loolu am na lu fi am existant am na ñoo xam fi nekk ni ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci wàllu boobu am na yeneen association yu fi nekk et cetera kon ñun dañuy jokkoog ñooñu dolli la ñuy def rek su ko defee ñu gën a yokk campagne de sensibilisation yi yaatal ko ci réew mi yëpp tey jii foo dem ci Sénégal am na ay association éleveur am na ay association environnement am na euh, ay ay ay communauté ay ay société civile ñeneen ñoo xam ni ñun li ñu bëgg rek mooy fexe ba ñu gën a dugal ci seen biir activité xoolal affaire toppatoo ma la. loolu rek la loolu kon sensibilisation lay laaj euh, ak def ay plaidoyer par exemple wax gouvernement bi na gën a dooleel vétérinaires yi ci moyen pour ñu gën a mën a déplacer wu ci àll bi fépp euh, ak tamit ci biir dëkk yi fii. xoolal dëkk yi fii oto yi rey muusi ci tali nu mu leen neexee mm. dañuy mbëkk ko foofu muy sukuraat sukuraat bu métti kenn da ngay romb xaj bi nii doo xam koy woo doo xam foo ko na keroog benn tubaab bu jigéen moom woo ne benn muus bu ndaw buy jéggi euh, xamul lu muy def mu jëndal ay meew yëpp jox ko benn gardien bu nekk foofu kooku ne ko dinaa ko dinaa ko jox meew bi léegi nag mu ne la kan moo ko mën a toppatoo muy woote di woote ba tombé ci benn association xaw ma SOS euh, animal xaw mm-hmm. ñooñu ne ko woowal imam Kanté sama xol sedd ci lool ma ne comment tiens ndaw si tubaab la mu woo ma ne ma dafa am benn muusi ma ne ah sant yàlla mm. comme mi ngi ma woo parce que dañ ko jox sama contact ne ko maa ngi toppatoo loolu mm. kon ma gën a kontaan euh, jox information bi waa ASPA ne leen gis ngeen bu ñu xeeb la ñuy def kon nañ continuer su ko defee Sénégal bañ a nekk ndaare ci wàllu euh, toppatoo euh, mala parce que bëri na domaine yoo xam ne Sénégal dañ ci nekkoon jàmbaar nekk ci pionnier kon tam ci affaire u maltraitance animale buñ ci nekk ndaare di bàyyi ñuy toroxal mala yi Euh, ci anam bu nekk euh, te fekk war na fi mën a wàññeeku bu baax a baax dem hmm. sax ba jóg fi dontoon même ci pays yi gën a avancé sax loolu ma nga fa ba tey lu metti la fléau metti abandon d'animaux yi maa ngi gis naa yi France mais comme li nga wax effectivement ñun danañ dem en plus de la sensibilisation danañ dem ñun ba nekk partie civile u animaux yi te pourtant noonu sax moo mës a moo mës a am parce que animaux yi nit moo leen mës a taxaw gisoo yéen saslam bi mu waxee waa ji ragalal yàlla ci muuma bi cest à mënul waxal boppam soxla mënul waxal boppam li mu soxla ak euh, li ko metti mais yow mii nit yaa yaa koy xam nga xam ne lii waroo ko sëf euh, société yëpp dañ la doon wax ne mbaam bi bul ko sëf lu toll nii fas bi nangam doon mm. doon nañ ko xam mm-hmm. à peu près ah xoolal fi nga gis benn charrette dafay sëf fas bi ba du mun dem man ci corniche bi mun naa taxaw benn waaye ne ko décharger yenn briques yi parce que monté bi fii fas bi dem na ba attantu ko fas bi su ko attanee day dem su ko atteindre dem su ko atteindre day dem su taxawee rek attantu ko ma ne ko loolu nag message boobu yaa ngi décrypté yow la yàlla may xel nga décrypté fas bi mi ngi def li ko yàlla defloo mooy nekk à ton service am doole boo xam ne amoo ko di ko di ko liggéey mais par contre yow wàcc nga sa àndu nit parce que nite bi yàlla def ci yow ci xel nga mën a analyser xam ne lii fas bi attantu ko ma ne ko yow nag yaa ngi bëgg a doon cuune ba ko benn boy keroog fële man leen na ngeen bàyyi xel loolu que sëñ Saliou Touba nee nañ ma charretier yi daayira charretier yi borom fas yi ñëw nañ fa indi cinq cent mille adiya ma leen ñaata ni ko cinq cent mille mu ne nii enveloppe ne leen nii naat ni ko cinq cent mille mu ne bëgg ko ñu ne ko un million mu ne leen lépp dellu ci ñoom lu ngeen leen def mën na ni mën ngeen ko def loolu Coro Mbàkke sama xarit nekk Touba moom ko wax fekk ma defoon benn émission càmbar ci diineem ci ci maltraitance animal invité benn ONG mu woo ma téléphone ne ma suivre naa émission ba wax ma loolu kon tamit on a de bonnes traditions de bientraitance animale wax papam ni mu meloon ci ay fas ak mbaam mu ne ma kenn ñemewu leen def dara kii kon am nañ fi ay tradition yooyu tam ñu valoriser ko mu mu mu bañ a niru nit ñi ne affaire tubaab la ñeen indi rek xam nga loolu mooy problème bi souvent ah non ñi dañu tubaab yi non ñun mala mala la rek mais fekk ci réew mi fii ci suñu diine ak suñu aada yi dégg nga euh, rafetal sa digganteeg mala euh, am na fi kon enseignement yooyu tam nañ ko génnee def ko ay fascicule def ko ci langue yi euh, sénégalais yi jot ci donc il y a il faut s'organiser et faire ñàkkul tam ne peut-être am na am na yoon lu mu lu mu prévoir loolu. ñi nga xam yoon prévoir na ko daanaka mën nga wax ni loi yi nekk France daanaka mooy nekk Sénégal ci daan képp kuy taraxal mala. même boo gisee fas yi nii am na heure yi ñu war a liggéey nanga ak nangam kenn du ko respecté donc ñun danañ def stratégie aussi effectivement boo xam ni lu ñu def mooy dañuy xoolaat loi yëpp xool yi nga xam ni yëpp baax na ñu maintenir ko renforcer ko yi manqué ñu mottali ko def yi daal ne gouvernement bi léegi nañ gën a jox moyen ñi appliquer euh, loi bi jéem a xool tamit loi bu fekkee baax na lu tax appliquer wuñ ko loolu tam dafa laaj gëstu doo rek di wax say wax ni di xataraay donc loolu la mais sinon ñun danañ jël suñu responsabilité nekk partie civile wala wut suñuy avocat yëpp te même loolu sax xëy na bëriwul Sénégal encore ah ay avocats yu spécialisé wu ci maltraitance animale bëreegul même ñun mën nañ jox ñooñu liggéey parce que mën na leen wutal euh, ay bourse ay formation Europe feneen ak feneen ñoo xam ne dañ raw ci wàllu boobu ñooñu ñëw di gën Mhm. loolu day dugg ci biir économie solidaire bi nga xam ni man ak sociale bi nga xam ni dama ci daf ma yitteel mm. loolu quoi mm.